ñaaña daf ñu fekk ñu toog ñu toog defuñu dara mu ñëw nekk suñu biir di def dara ne ma bugguma jigéen bu tayal jigéen day af am Pastef ndax jigéen warul xaar état kese pour mu koy jàppale du xel ndax réew bu suqalikoo ñi yor te mën war nañ ci mën a def seen doole pour dimbali ci état bi bi yàlla defee loolu mu indi fi tey don bu dul jeex indi na fi euh, nu mu tudd cent tonnes euh, ceeb suukar at tamit noonu dawlin noonu tàndarma noonu lépp mu indi ko fi jox ko magu koñ gi ak ndawu koñ bi xoolul ku mu maaseel ak ku mu maaseelul mu ñëw taxawal fii GIE bu mag GIE boo xam ne daf ci jublu rek pour ñun ñu bañ a keru ndax dafa romb ci ay secteurs yu bari dem ci àll bi gis ñuy def lu nekk ay kalabaas lu ne am fa lépp waa àll bi di ko def ñun ñu toog mu ne loolu du ko nangu bi mu ñëwee mu tijj ko ci dooleem laaju ñu ñoo dara lu dul benn carte de bu ñu jënd buy jar ñaar téeméer kese la ñu laaj pour ñu cotiser ko pour GIE bi mën a démarrer ah biñ ko defee nag tamit démb ak bërki démb ba tey mu ngi ko doon def waaye tey bi ñu ko defee it dañ ci gën a gis njëriñ njëriñu taxaw boo xam ne taxawu na ko ci taxawuñu nañ ko ci Médina bi. chaque année góor góorgóorlu rek seet nu ñu mun a def fu dajale tuuti don bokk ko jigéenu Médina yi dama bokk bu baax jigéenu Médina yi parce que man lu may def man jigéenu Médina yi ñoo ci samay prioritaire tey nag ma ñëwoon femmes yi ma def euh, ci benn groupement. ma dajale leen don yi ma amoon muy ceeb di diwlin di suukar ak tàndarma ma ñëw bokk kook ñoom loolu ñu fi indi woon dajale woon tey affaire yi mënuñu ko tuddee édition parce que édition du du refléter vraiment idéologie dëj bi tey parce que gis nga fii famille bu mag la gis nga boo feetee ñii ma taxaw nii ay ñu may àndal ëpp na ñaari fukki at donc xam nga dootul ay édition wala don boo xam ne da nga koy def pour gisal wala dara dimbal boo xamante ni dafa jóge ci xool dem ci loxo la noonu laa ko mun a expliquer daal parce que man Medina yàlla daf ma booleek ñoom sam pap daf juddu man juddoo ma fi gaa mi dafa mel ni fii laa juddoo dama yàgg nekk seen biir donc bu ma demee ba mun a yàlla may ma as tuut parce que lii sax xeeb naa ko munu ma mun a bokk ak ñoom damay ñëw bokk ko ak ñoom donc looloo ñu dajewoon tey ma ñëw wu tuuti diwlin wu tuuti sukkar pour jox ko femme yi xaw leen xaw a allégé tuuti daal ndax xam nga koor jigéen yi yor kër yi jigéen yor liggéey donc day metti donc loolu rek moo ñu dajale woon tey jii nag ba pare nag dinaa ci profité parce que ndimbal boo gis rek toujours dina am loxoy borom. donc bi gaa man maa koy initier waaye terewul toujours dinaa am naa ay ay ginnaaw yoo xamante ni ñoo xamante ni lu ma sumba rek toujours dañ ciy def seen loxo donc gulet tey nag mam occasion remercier leen